Europe dellul soleil trois millions sept cent et quelques mille an pap kon élection bu mu am pap pap bu dee Amadou Ba lii la am ci parrain pap waxal sa gaay wa opposition opposition soxlaw ni dem élection mais pap ki num mu leen di doré dina métti <laughs> pap pap pap nee naa leen dama bëgg loolu rek ay retenir ko xam ne loolu droit d'auteur Doudou Coulibaly la pap ut parrain moo gën a métti ut vote xam nga lu tax pap parrainage dañ koy collecté vot da ngay convaincre nit ñi ñu toog fi ñuy toog votel la mais pap parrainage

Amadou Ba gagne les élections au premier tour avec plus de 70% des voix. Oui. Mais Amadou Ba y'a yo Amadouba ya Amadou Ba nag yàgg nañ ma wax mais ma ngi ni ngi ni yow Amadou Ba resah sax suluan ma yo rusul woon naa la wax yow njublang te su ma la rusul yo sax naa wax yow muusoo yo gars yi nangu nga porte li ay dëkk yo xamni ni ay dëkk yo xam nit ñi amuñu fa 500 voix ci législatives yi passé ñu né am nañ parrain ah pap Pape ku votelul Macky Sall voteloo ay député di nga ñëw votel Amadou Ba ah Pape mais pourquoi ñii ñuy mun nax seen bopp Pape nee nga nee nga mag buy fooyee xelam nuñ koy wooyee ma ne Amadou Ba mii di fooyee xelam yow noo koy wooyee waaw mais eh, Pape <laughs> mais Pape yow leen yi passé waxoon loolu <laughs> non mais ah! bu dee lii lañ naxee Amadou Ba rek pour dalal xelam naxé ko Macky Sall pour dalal xelam naxé ko APR pour dalal sen xel naxé ko wa Beno Bokk Yakar pour pour pour dalal sen xel ñu ngi nax sen bop ri mais pap kaay mo wax militant APR bu muy def militant APR bu nekké ci ben gox xam nga responsable ni xëccoo mais Pape ku ñëw mu de hein? mais ku ñëw mu de 3 millions par 4 De 1 million Hein? Voilà, par 4 3 millions 700 presque 4 millions Vous divisez par 4 de 1 million voilà 900 et quelques mille Ah, pap 900 et quelques mille voix ah yemul foofu de man maay jàngal Amadou Ba maa ko koy jàngal si neuf cent mille yi des neuf cent mille yooyu cinq cent yi ay parrainage acheté la mu des quatre cent mille yu sincère gis nga Ba bu muy tuur maa koy wax fi Amadou Ba bu muy tour du passer 20% ndax 20% dina ko deuxième tour wala du ko yobou deuxième tour bu muy do du 20%. vingt gis nga Amadou Ba day tiaxan day nelaw Amadou Ba amna ben affaire bu mu organiser samedi parcelle non seulement Njaga njay fune ne la ñu ci Sénégal mais benen mais xalé yu ndaw mbuccaa mbucc yoo xam ne xam nañ lay ne bo feesalee njege njaay rek am nga temps pap nga dem for xalé koñ bi ño xam ne amuñu carte électeur gëmuñu affaire gëmuñu dara nga jox leen t-shirt jox leen casquette jox leen ciébu dig leen sandwich ak xaliss pap gali yi def xalé yi

Pape entre cinq heures ak vingt heures wala le lendemain ñu ndékki si añ si wala ñu am si ndékki bu normal mais Pape da yaakaar ni boo woowee femme yooyu duñ ñëw dañuy ñëw mais Pape quand arrivera l'acte du vote l'acte du choix Pape Pape suñu alal bi yëpp pasar pasaree nañ ko Pape mobilisation Ndiaga Ndiaye yi amul sens ñoom xanaa gisuñu xooluñu waa Pastef pap waa Pastef nit ñi dañuy signé parrain joxe dix mille trente mille cinquante mille pap yow yaay joxe ñee dañ leen di jox pap pap à l'arrivée y aura pas photo pap man gisuma fen demay wax nak c'est une analyse objective gisuma fen fu Amadou Ba mun jaar ba gagné élection yi gisuma ko pap pap pap mala wax dencal pap gis nga le 25 février ci ngor pap pap ko dina jib